la sant borom ndigal di sant taalibe yëpp ndax maanaam li gën a neex liggéeyal sa sëriñ te yéene ko ko mooy ñi gaañu doxe boo gisee ni ñuy doxee nga xam ne mën na noo am ñetti fan te duñ sonn kon yàlla nañ ci am ngërëm a sëriñ bi te sëñ bi lool te wér te dara bañ ñoo gàllankoor ñun ñëpp barke borom yi ngi gis a a mboolem taalibe yëpp uh-huh. ndax maanaam li gën a neex liggéeyal sa sëriñ uh-huh. te yéene ko ko mooy nii gaañu doxe boo gisee ni ñuy doxee uh-huh. nga xam ne mën na am ñetti fan te duñ kon yàlla nañ ci ngërëm a sëriñ bi te sëñ bi yàgg fi lool te wér bañ ñoo gàllankoor ñun ñëpp ah waaw ñi nga xamante ne dañoo war a barkeelu barkeelu loo bokkul kenn ku ne dañ laa war a sas fii mbaar mi dox dañoo war di joxe baa muy yegg ab taalibe du wàcc